إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من علينا بهدايته ووفقنا لطاعته وانقذنا من عبادة غيره والصلاة والسلام على أفضل خلق وعظم صنعي بك جل جني دقلو كي بقى يكتكادو موي شيخنا الشيخ سعد بو دوم الشيخ محمد تقي الله دوم الشيخ الخليفة doomu cheikh na cheikh Saad bu maamam cheikh al xalifa moo jëkk a toog ci xilaafa gi kon tey damay wax ne la ca maam sëta koy donnu kon ñu àdduna warngal këpp cheikh na cheikh Saad bu di cheikh na cheikh Saad bu dellusiwaat ci jamono xalif général kullu qaadir mooy bëgg a yëkkati kàddu na ko mbooloo mépp déglu ànd ak yar ak teggin ñu taataan ngir ñu jariñu cheikh na nee mi ngi yëkkati kàddoom di nuyu waa adduna yëpp rawatina umma islamique bi waate nag nee rawatina waa Ndar ndax waa Ndar kat tey fàttali nañu adduna bépp dugg cheikh na cheikh Saad Bou tey Ndar foo sànni battum bu tàkk anum mu ne mi ngi nuyu waa Ndar ñëpp di leen sant di leen gërëm. di leen sant di leen gërëm ci li ñu ma def. sant di gërëm ci teertu bi nga xamante ne teertu nañ ko waaye nag Cheikh na day laata muy si fii mi ngi jëkkee ci dëbi dëbi nag foofu la maamam ju baax ji turandoom ju baax ji jëkke woon Cheikh na Cheikh Saad bu tubaarakàlla macha allah moom ñu teertu ko teertu boo xamante ne yéeme na mu ñëwaat tey ndar waa ndar tam teertuwaat ko tey teertu boo xamante ne yéeme na. kon nee na mi ngi sant gouvernement bi. mag ak ndaw. ak seen liggéey bu rafet. ak seen liggéey bu rafet ak seen taxawaay bu rafet. te nee mi ngi ñaan yàlla sunu boroom. yàlla ne yàlla taxawuñu taxawul leen ñaari gouvernement yi muy bu senegal ak bu Mauritanie seen taxawaay rafet na. ak bu Mauritanie nee seen taxawaay rafet na. kon ki am gan moy son excellence président de la république Macky Sall cheikh na cheikh sall bu nak mo dug ci ci réew mi cheikhal fi 313 cheikh ci xet bu nek ci Sénégal tay cheikh na dal fu mu tek tànkam du fa gan lama ma waxoon la way kat bo waxoon rek président هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم كي دال موي كيغا خامتاني موي كيغا خامتاني ki ندار اك جيت ندار xamé nañu ndëggul ki fi aksi tay Cheikh na Cheikh sadbu ndax maamam 1872 la fi aksi won yëkkati fi baatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam burusu leer ak maamu yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci Sénégal ci xet bu nek ba tournée bobu nak tay mom mom tay tay nak mbir mi aksi na ci mom tournée bobu nak la Cheikh na di def ñi ngi ñaan yàlla ñu commencé ko bismillah agade ko alhamdullilah rabbil alamin yàlla yagal ñu fi yagal ñu fi ci barke mamam Cheikh na Cheikh sadbu kon Cheikh na Cheikh sadbu ngi ni delu ci wat delu ci wat na jamono sunu ngi ñaan yàlla sunu borom jàmm ci mi. Cheikh na nee mi ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla wàcc jàmm ci réew mi. ak ci njaboot gi. ak ci njaboot gi. te jox nee na mu dafa leen sutura sang leen mbalaam mbalaanum sutura. biir biti. biir leen ci yoonu siraatul mustaqim. mi ngi ñaanal nag njaboot gépp yal na yàlla teg ci siraatul mustaqim rawatina nag umma islamique bi jullit ci àdduna bépp Cheikh naa ngi leen di ñaanal. yàlla na leen yàlla teg ci yoonu siraatul mustaqim defal réew yëpp defal it ndaw yi teg leen ci yoonu siraatul mustaqim defar réew mi defar réew bële. defar nee na nee na defar réew mi defar réew ma ñu jógee muy Mauritanie defar nag réewu jullit yi ci àdduna bépp yàlla na leen yàlla defar. ci darajay seen maam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gannaaw loolu maa ngi leen dénk. gannaaw loolu nee na mi ngi ñuy dénk. dénk bul kenn def lu dul nee na lu waay di def rek na nga ko def li wajhi llaahi taala na nga ko def ngir yàlla. yàlla du wor du jaawale nee na yàlla du wor du jaawale jëf du fakk jëf kon lu waay di def na nga ko def te yàlla tax te te it loolu li ko waral mooy li Cheikh na wax rek ndax sunu maam yi ak Cheikh na ci Saad bu 1872 la woon booba ba léegi téeméeri at ak juróom fukk tegal na te tey ba tey Cheikh na Cheikh Saad boo ngi nii toog ba léegi ñun ñoŋ ngi ko topp. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل كون لي وار مو كون لي ام موي اند بي اند يالا موتاخ كون ني نك يين با اجنا امو لي ني تاخالي ني نك يين با اجنا نون كير شيخنا شيخ سعد بو لا ني ام دوي نانيو ادونا اك الاخره مو في سونو بات مو في سونو خول ماندي نان سي ليرو شيخنا شيخ سعد بو امو لنين لو خامتيني فيستينا سونو بات ماغي لين نيان mune mi mune mi ngi sakku ci talibi ak julit ci adna nañu sonk julli di ko julli ca waxtu wa. di ñaan yàlla sunu borom. mu ne mi ngi ñaan yàlla sunu borom. defal ñu defal leen tawfiq. yàlla defal ñu defal ñu tawfiq. jàppandi ak jàppandi. ak ci ci njaboot yi yëpp. ci njaboot gi yëpp. fu ñu jógee. fu ñu jógee. ak fu ñu muy Mauritanie ak fii ñu wàcc tey ci Ndar. jaahil Mustafa sallallahu alayhi ci daraja seen maam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne yonent dootu ñëw gannaawam. ginnaaw loolu mu ne gannaaw loolu ñu ngi sàkku. duwaa. ñu ngi sàkku ñu ngi sàkku nee na moom ci jëmi boppam moom Cheikh na mi ngi sàkku ci taalibe yi ak jul yëpp nañ ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér. waaye ñaanal naa man itam tànk maa ngi dund ci dunya. waaye moom it nee na tànk mi ngi dund ci aduna du ma na du jóg di ñu ñaanal du jóg ci di ñu ñaanal yàlla. ndax moom bi mu juddoo ba léegi mi ngi jàkkaarloog yàlla boromam te gëstoogul. wallaahi. يلا يلا اللي اليب منين شيخنا نينا يلا يلا لير اليب جاه محمد صلى الله عليه وسلم تبارك تبارك سين مام يونت يلا محمد صلى الله عليه وسلم كي درجه سين مام يونت صلى الله عليه وسلم كلام اجناو نينا كلام اجناو حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي اورما سين سين كي اورما سين مام يونت يلا محمد صلى الله عليه وسلم اك اورما شريف يي دي واكر يونت يلا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله waaw kaddu yooyu moom moo tukkee ci cheikh na cheikh saad bu doomu cheikh na cheikh Saad bu tay mu ñëw ndar ngeen gis tertu buñ ñu ko teertu ba ma sha allah kon nañu talal loxoy nañu talal loxoy ñëpp ñaan ñëpp ne amin fu way toll na wax amin amin الخير ان شاء الله امين يا رب اخترته عمر في السفر صلى عليه وتقرمه صلى على مجاهد اسمه مقرون مع اسمه في السابع عشر امين امين امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفرنا عنا سوء عقابك وقربنا بحضرة قدسك ومن تعلق بنا آمين يا الله يا الله يا الله آمين آمين خذ جاي خذ جاي جزاكم الله خير بسم الله خير di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko tey ci bis bi nga xam ne bis bu am solo la muy bis bu màgg muy bis bi nga xam ne xalifa Cheikhna Cheikh Sadbu dafa dugg si fii ci Ndar muy occasion boo xam ni seen occasion unique historique et inédite lu tax loolu parce que tey jii 1872 la Cheikhna Cheikh Sadbu dugg ci biir réew mi tey ñu ngi nekk ci 2022 moy 150 ans téméré ak ak juróom fukk Cheikh na Cheikh Sadou mo duggoon ci réew mi 1872 Cheikh na Cheikh Sadou duggaat tey ci réew mi mille donc ñu ne won par rapport ak solos bis bi jaaduna ñi xamni xam ñoo seq mbir mi di wa akër ay ahlu bayt rasoul wa akër Cheikh na Cheikh Sadou Cheikh Ahmadou Fadel mën jakkar ak askanu Sénégal askanu Mauritanie askanu sous région bi ak su diaspora bi ak àddina bi nga xam ne mooy umma islamique bi pour wax ak yéen donc kàddu gi ñett lay doon bi ci njëkk dañ koy jox cheikh na doomu Cheikh Dramé doomu Cheikh Al Khalifa doomu Cheikh na Cheikh Saad mi nga xam ne mooy responsable comité d' organisation xayma bi fii ci dëkk bi mooy ndar buñ ci jógee ci loolu ñu jox kàddu gi Chérif Mahfou Cheikh Chérif Ba mi nga xam mooy coordonnateur général bu xilaafa Cheikh na Cheikh Sadbu ci biir Sénégal ak en Afrique de l'Ouest bu nu jugee ci loolu jox kàddu gi at Atkhane mi nga xam mooy porte parole bu xalif général des xaar ci Sénégal ci Mauritanie ak ci Afrique de l'Ouest donc ñu ñaan leen ñu teewlu parce que li wax ji wax ju am solo la parce que wax joo xam ne dafa jëm ci taalibe xaadre yi wax joo xam ne dafa jëm ci waa Sénégal wax joo xam ne dafa jëm ci umma islamique bi wax joo xam ni njëriñ la parce que lii ñu gis ndar tey jii yaakaar naa ni gëj nañ koo gis te jamono Cheikhna Cheikh Saad Bou donc muy lu am solo donc noonu lañ bëgg mbir mi mu tëdde ko point de presse lay doon xëy na du am question réponse mais dañ leen di bàyyi ñu taataan ñoom li nga xam ne lañ bëgg a wax su boobaa yéen ngeen jël ko bu ñu paree ñu dem ci cérémonie officielle bi nga xam ne moo doon troisième temps fort bis bi nga xam ne mooy bis bi am ci ndar jërëjëf شانا جاي كادو جاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي سنغال مبكي جلتي مبكي نار مبكي رجيون دي سين لوي كما سي روسو سنغال دبي بندر بيغا خامني بو خليف بي نيو ñu taxaw si taxawaay boo xam ne ba ma juddoo ba léegi maa ngi koy doog a gis man mi nga xam ne moom man la ñu responsabiliser Saint-Louis wa tabarakallahu wa ahsan xaaliqina maa ngi gërëm monsieur le gouverneur monsieur le préfet sous préfet di gërëm commissaire central di gërëm commissaire de GMI di gërëm waa sapeur pompier waa croix rouge waa service d'hygiène waa gendarmerie ki nga xam ne mooy seen jiit te ne te ni moom mooy yore région de nord yëpp fa tabarakallahu ahsan xaaliqin ñu taxaw ak ñun taxawaay bu rafet di gërëm waa Ndar di gërëm taalibe yi yëpp góor ak jigéen si seen mobilisation bi ñu def ak seen taxawaay bin def ci teertu bi ak ci berdeel yi nga xam ne ñu ngi koy def ak ñu ci waat fii ba xalifa bi di jog di sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm samay mag yi fi toog euh, euh, porte parole اك شيخ اسامه ماك شيخ سيدي بويا دومي شيخ حضرامي دومي شيخ بولنا اك رقم اك شيخ محفوظ كي شيخ باه اك واك الشيخ محمد فاضل واك الشيخ مامين واك الشيخ الدين مختار يب ينا خمنا نيونا نتاو اك من بسبي جاب لي ماشي فينانسيرمون اك اك اك لب دفنكو ndaxte درب مانكول وتبارك الله واحسن ahsan كون kon di gërëm itam taalibe yi bu baax góor ak دمنن جخ نديغرك نيوم ما شاء الله نتخاو تشنج ديغل بي نتخاوكو دم بروسه تيركو غونغيكو بدبي دل سوات ندار ñu koy teeru teeru boo xam ne ba ma juddoo ba léegi mosuma ko gis walillahi alhamdu te di ñaan yàlla ngeen ñaanal suñu xalif général bi Cheikh Cheikh Saad Bou doomu Cheikh ma taqiyullah doomu Cheikh xalifa doomu Cheikh Cheikh Saad Bou moom mi nga xam ne doomu Cheikh Mouhamed Fadel ñaari yoon la taawam moo jëkk a toog ci xilaafa bi maamam bu bu jur waay juróom bu jigéen moom moom la def 17 ans fii ci euh, ñu suul fii ci gox mbaaj Cheikh Cheikh Saad bu ñëw fii mu mu ñëw taxaw si moom mu ne ko Cheikh Taalib Booy lay babtu mu ne ko ndoxum géej bi ma jege mu fekk beneen taaliba bu xam ne Cheikh Saad ba ko yónni woon pour mu wut wutal ko addiya ñu rey ko agressé ko boo mu ñëw Cheikh Saad bu ñëwee fii si Ndar ni ni اه، اه، اه، سخنا طالب بابو نيو جايتو افير بي مونيكو ان شاء الله بوسو بعد نادم لاجكو كان موكري فكنا و اوتوريتي فرنسا نيو في نك جامانو بابو نيو ور ور من خم جني جانا شخصات بني ما يدم يكتي سما طالب بابو موجوك بوم واخ ما كان موكري لولو شيخنا شخصات بكرامه بوم دفيسي سان لوي بباري mu laaj rakkam Cheikh Talib Boye mu ne ko lan moo la fi metti mu ne ko euh, vague yi nga xam ne day dóor ba si sama ndigal yaram mu dama bëgg nga jëlee ma fi 17 ans mi ngi ko suul fii fekk ko li mu moloon comme kuy nelaw mu yëkkati ko moom ak taalibe yooyu nekkoon ak moom mu teg leen ci kaw gileem ñu doo bëgg naaw njaago mi dëkk place bu ñuy wax Ziré benn tudd bu weex tal gileem yooyu daal di wàcc ñu suul leen foofu te fekk na loolu la Cheikh na Cheikh Sall bu jox ñu ngi sant yàlla ci teewaayu xalif général bi دي خمن الدومي أنا أحمد أنا أنا لا دي دي دي دي, دي عندك أي أي أي رقم يا خمن أنا أنا ما أنا أنا أنا أنا أنا أنا مجيتو أنا كنام واخر أنا أحمد أنا أنا خمن يوم أنا أنا دي ستو أنا دي دومي أنا دي كونسي دي دي لب أنا أنا أنا أنا أنا عندك أنا نيب أنا نيب دف دي أنا أنا أنا دومي شيخ محمد المعلوم الحسن أنا بيه ndaxte ba Maroc la joge biig la dugg si 2 heures du matin balaay bi set talibé yi taxawal nañ ko ba tabarakallahu ahsan xaaliqin seen loxo dara manqué wu gileem yaa ngi ñëw nag yaa ngi ñëw xar yaa ngi ñëw lépp ci samay doomi baay yi toog ah ak ñi nga xam ne ñëwuñu teewuñu ñoom ñooma si jàppale taalibe itam seen loxo yi ngi ñëw maa ngi gërëm bu baax itam monsieur le président monsieur le maire monsieur le gouverneur ak ñi ma leen limal ñëpp si seen taxawaay ak ñi fi nekk ci waa Ndar ñëpp ñu ngi leen di gërëm kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ñaanal yàlla yàlla senegal Sénégal jëm kanam yàlla na jàmm yàgg fi yàlla na ah, di gërëm nag ah, ah, journalistes mooy médias yi fi nekk RTS 2STV ak TFM a terem dar info ak euh, euh, euh, seen tiif yi yépp daal fàtteewuma kenn ñu ngi leen di gërëm si seen taxawaay ak waa Thiès waa diaspora yi ñu ngi may yónnee seen participation si taxawaay bi taalibe yi daal ak ak jullit yi ak abdi jàmm yi ñëpp def nañ ci seen loxo moo tax mu réussir nii maa ngi leen di sant ñëpp di leen gërëm di baalu ak loo xam ne wax naa ko te jubul ci man la waaye bu jubee si sama mag yi nga xam ne ñoo ma yar alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci ndar ci barab bi nga xamante ne sunu yaakaar di sunu sëriñ muy cheikh na cheikh Saad bu fii la wàcce woon xaymaam ba 1872 tey nag cheikh na cheikh Saad bu moo dellu si waat ba tabaarakal macha allah ànd njaboot gi ñu dar ko ah, Chérif Ba di Cheikh Mahfou di xalifa waa kër Cheikh Mahfou nga xamante ne moom mooy coordinateur bi moom nee na kàddoom jox na ko rakkam wet mi toog wa tabarakallah macha allah pour mu yëkkati kàddoom jox na ko kàddoom bu loolu jàllee itam ki war a yëkkatiwaat kàddu mooy Chérif Atkhana fondation bi nga xamante ne moom tabarakallah macha allah kenn du ko présenté àdduna bépp xam nañ ko di porte parole bismillah asalaatu wasalaamu ala rasulillah Chérif Faty mi ngi commencé di ubbi nuyoom di julli gannaaw bi mu waxee bisimilah rahmaani mi ngi julli di sëlmal di ñaan yàlla dott xéewal ci maamam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mi ngi leen di nuyu nuyu lislaam muy salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci ndigalu sama mag. mu ne ci ndigalu magam. sama kilifa kilifaam. sama sëriñ sëriñam. ndigalam lay wax nee na ci ndigalam lay waxee nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci ci taxawaay bu rafet bi ci ci waa ndar nag ci waa ndar nag waa ndar ñëpp taalibe yi nee na waa ndar ñëpp taalibe yi ak dëkkandoo yi di félicité suñu mag nee na nee na mi ngi nee na mi ngi ndokkeel suñu mag suñu sëriñ Cheikh na doomu Cheikh Khalifa ndax wax dëgg yàlla nee na ndax wax dëgg yàlla. weesu na sunu njort. nee na li fi li li feeñ tey ndar kawe woon na sunu njort. weesu na li ñu yaakaaroon. waaye weesu na maanaam li ñu yaakaaroon fa di leen xam. ngi sant yàlla bu baax kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu. Eh, te di ñaan te di ñaan mbokki suñu mbokku shérif yëpp. te di ñaan suñu mbokku shérif yëpp. Eh, ak mbokki taalibe yëpp. ak mbokki taalibe yëpp. li nga xam ne bii mooy digle yi nga xam ne bii Cheikh Saad Bou suñu xalifa digle na ko. ñu jàpp ci ndigal yi nga xamante ne tukkee na ci Cheikh na Cheikh Saad Bou. di topp di suñu xalif. di topp diine yàlla subhaanahu wa taala. ñu tënku it ci saraatul mustaqim tënku ci sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tënku tamit ci li nga xam ne bii moom la ñu Cheikh na Cheikh Saad Bou bàyyil. tënku it ci li nga xamante ne moom la ñu Cheikh na Cheikh Saad Bou bàyyil. ci wàllu diine. ci wàllu diine. ak wàllu aada. ak wàllu aada. wàllu doxalin. ak wàllu doxalin. loolu moo tax ñun ñu jaayante. nee na Cheikh na Cheikh Saad. nee na loolu moo tax ñoom ñu jaayanteeg Cheikh na Cheikh Saad bu mii. jébbalu ci moom. jébbalu ci moom. nar ko nar ko xëdim. nar ko tarbiyu. li des ci sunu dund. li des ci sunu dund ñu tarbiyu ko ko moom Cheikh na Cheikh Saad bu mii. di topp suñu gannaaw suñu mag ñi. di topp nag ci sunu gannaaw mag ñi rek. nga xam ne li ñu def lépp. ñoom ñoo ñu ko jàngal nga xam ne li ñu def lépp ñoom ñoo ñu ko jàngal. ci ñoom lañ ko gis. ci ñoom lañ ko gisee ci ñoom lañ ko royee. di ñaan di di di ñaan tamit lépp ñi nga xam ne fii la xalifa bi war a dem. ñu ñaan fi nga xamante ni fa la fa la xalifa war a dem. ñu roy ci li Cheikh euh, na Cheikh Hadrami def. ñu roy ci li Cheikh na Cheikh Saad bu doomu Cheikh Hadrami def. ñi roy ci li Cheikh na Cheikh Saad bu doomu Cheikh Hadrami def. ci ci tertu bi. ci tertu bi. ñu def lu mel noonu. ñu def lu mel noonu. pour mu mel moom dana jafe. pour mu pour pour nag mu mel nii dana jafe. waaye ñu góorgóorlu. waaye nag ñu góorgóorlu. ba ñëpp def ba kenn ku ne def sa kéemtalaay kàttan. loolu daal la la sama sama mag ne naa ko jottali loolu la magam Cheikh Mafou waxoon ne ko na ko jottali tant que coordinateur mi ngi sant autorité yëpp mi ngi sant autorité yëpp di sant taalibe yëpp di sant taalibe yëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla fa seen aaju ci daraje seen maam yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kàddu yooyu moo tuddee moo tukkee ci Chérif Bét Chérif Atqana di porte-parole mi ngi tàmbalee waxam ci turu yàlla bu sel bi muy bismillah di sant yàlla borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muy julli di sëlmal di ñaan nak yàlla dot xewal ci mamam yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu sous région bi yeb mu ne ñi ngi nuyu sous région bi yeb di len sargal di len sargal ci xewal gi ñu yàlla may ci xewal gi ñu yàlla may موي شيخنا الشيخ سعد بو موي شيخنا الشيخ سعد بو الشيخ محمد تقي الله الشيخ محمد تقي الله تيمو مودك تيمو مودك كي فيغا خامني كي فيغا خامني في لمام شيخنا الشيخ سعد بو في لمام شيخنا الشيخ سعد بو دالون دالون 1872 1872 يلا اوبيلكو اي خيولم يلا اوبيلكو اي خيولم ba mu def jaloore yi mu def ci Sénégal ba mu def jaloore yi mu def ci Sénégal. ak Mauritanie ak Mauritanie ak. sous région bi yëpp ak sous région bi yëpp. waaye boobu yëpp. waaye loolu yëpp. ubbeeku bi ubbeeku bi. fii ci place gii ci ndar gii. fii la ci place bi la woon ci ndar fii la woon. début bi ñu bàyyeekoo sànq. nee na début bi ñu bàyyeekoo sànq. mooy buntu nee na mooy buntu ndar ndax fa la na jëkk a jaar soog a ñëw ci ndar ndax fala la na jëkk a jaar soog a agsi ci ndar waaye nag ndar mooy mooy buntu waaye nag ndar mooy buntu Sénégal ak Afrique Sénégal ak Afrique ci may mi nga xam ne yàlla may na ko ci nga xamante ne yàlla may na ko cheikh na cheikh Saad bu mu wisaare ay wilaya mu wisaare ay wilaya yëkkati xalimaam bind ci ñu baax ñi fi nekkoon yëkkati xalimaam bind ci ñi baax ñi fi nekkoon. ngir nit ñi gën a xéewlu ci ñoom. ngir nit ñi gën a xéewlu ci ñoom. ku mel ne El Hadj Malick maam borom Touba. ku mel ne El Hadj Malick maam borom Touba Xaadimu Rasul. fi dara nekkul woon. Cheikh Cheikh Omar ta taal fi dara nekkul woon mu taal fa ay taal yu nee na fu dara nekkul woon mu taal fa ay taal taalu diine ndar gi ndar gi demoon na ba am ci junni ak juróom ñaari téeméeri ay cheikh ak muqaddam nee ndar ndar ndar ñu nekk nee na amoon na fi téeméeri junni ah amoon na fi amoon na fi junni amoon na fi junni ci ay cheikh ak juróom-ñaari téeméer ci ay cheikh Euh, def na fi ay jaloore yoo xam ne nee na def na fi ay jaloore yoo xam ne waxuma taalibe yi wala jullit yi nee na waxul taalibe yi waa wala jullit yi waaye chercheur u euh, Afrique ak chercheur waaye chercheur u yi ak tubaab yi gëstukat yi bind nañ ko bind nañ ko ba mi ngi fépp ci àddina si ba mi ngi fépp ci àdduna kon nee na kon bu ñu ni xéwalu Mauritanie ci Cheikh na Cheikh Saad Bou. bu ñu nee xéewalu Mauritanie ci Cheikh na Cheikh Saad Bou. moo di fa tëdd. moo di fa la tëdd. mooy dëkkam fa la njabootam mooy dëkkam fa la nek waaye tam ñu ni xéewalu Sénégal ci loolu. waaye itam ñu ni xéewalu senegal ci loolu. mooy karaama yi. mooy karaama yi. ak ubbeeku yi ak defar yi. ak ubbeeku yi ak defar yi. fii la balle ci ndar. fii la balle ci ndar. wasaare ci àdduna si yëpp. wasaare ci àdduna si yëpp. Euh, waa na. waa kër Cheikh na. ñooy ambassadeur u ñooy ambassadeur u xéwalu yàlla ya yàlla ñu koy wasaara ci àddina ñu koy wisaara ci àdduna léegi laa doon wax euh, xalifa bi mu ne léegi la doon wax xalifa bi mu ne ko waa kër Cheikh na mu ne ko waa waa kër na benn màngaan benn màngaan benn màngaan bu bàyyeekoo ci àjjana bu bàyyeekoo ci àjjana ndax euh, fatimatu rasulillahi mooy seen maam ndax fatimatu bintu rasulillahi mooy seen maam euh, te buruuk bi bi ko yaayam umbee te keroog bi mu bi yaayam wane lor. mi ngi rasulillahi mi ngi leer ci. rasulillahi mi ngi leer ci. réseau. ci réseau. ajjana ya ajjana ya. ci wàllu baatin. ci wàllu baatin. ñoom nag ñu nekk mangaan boo xam ne dafa joox si ci àddina ñoom nag ñu nekk mangaan boo xam ne dañu joox si ci àdduna ngir wasaare xeewal ci àddina ci jaamu yàlla yi ngir ci àdduna ci jaamu yàlla yi ak mbindaa fan yëpp daal di jàll alaxira daal di delluwaat àllaaxira moo tax àddina musul nekk musuñu xam cafka àddina moo tax ñoom musuñu musuñu musuñu xam cafka àdduna nekkul woon seen itte àdduna ñoru leen du seen yitte jaamu yàlla kese jaamu yàlla kese ak baaxi jaamu yàlla yi ak baaxi jaamu yàlla yi maam cheikh na cheikh saad bu dañ ko ni maam cheikh na cheikh saad bu dañ ko ne yow koo gis nga ñaanal koo gis nga ñaanal ko koo gis nga warlu ko ci yàlla mu defaru ko gis nga warlu ko ci yàlla ak defaru mu ne waa kii joxe baax mu ne waaw kii joxe baax ndeyam xam ne baax na baayam xam ne baax na ndeyam xam ne baax na baayam xam ne baax na defar ku mel ni moom yomb na defar ku mel ne moom yomb na koo xam ne ndeyam soxlatu ko waaye koo xam ne ndeyam soxlaatu ko soxlatu ko baayam soxlaatu ko mbokkam yi soxlawuñu ko mbokkam yi soxlaatuñ ko nga jël ko defar ko ba mu ba mu fees dell ak yàlla nga jël ko sol ko ba mu fees dell ci yàlla leeru yàlla àggale ko ci yàlla bu boobaa liggéey la nee na na loolu liggéey kun nena kon li ma ci teg moo di li ma ci teg moo di ñaari mbir ñaari mbir benn bi yéen taalibe yi benn bi yéen taalibe yi rawatina waa ndar rawatina waa ndar am ngeen xéewalu am ngeen xéewalu xalifa cheikhna cheikh saad bu xalifa cheikhna cheikh saad bu muy taawu cheikhna cheikh bu ci kaw ci kaw suuf muy taawu cheikhna cheikh saad bu ci kaw suuf yàlla jox ko ko yàlla jox ko ko waaye ommatal ko waaye ommatal ko mboolem kuy kilifa mboolem kuy kilifa ci kër cheikhna cheikh saad bu ci kër cheikhna cheikh saad bu mboolem kuy kilifa mboolem kuy kilifa ci kër baayam cheikhna cheikh mohammed fadil ci kër baayam cheikhna cheikh mohammed fadil mboolem kuy kilifa wala borom cër ci xam-xam mboolem kuy kilifa wala di borom cër ci xam-xam ñu nangul ko ñëpp nangul ko li ko yàlla may li ko yàlla may tax ma ne nangul ko. moo tax mu ne nangul ko. pour moytu ñu ni ñoo ko jox. nangul ko. ma ne pour ñu moytu ni ñoo ko jox ah pour ñu moytu ne ñun ñoo ko ko jox déedéet déedéet moo ko ko jox yàlla moo ko jox ñii ci seen mbaax ñii ci seen mbaax ñu nangul ko ñu nangul ko خليفه بو في مسنيو خليفه بو في مسنيو عندك تاو كر شريف يب كر شيخنا عندك تاو كر شيخنا يب يا خنا يا كرناني يا نجن جسلو باخ واي بو مسون مسلين كو جس يا نجن جسلو باخ واي بو مسلين كو جس بيمام شيخنا شيخ سعد بو نيو بيمام شيخنا شيخ سعد بو نيو دومم يي جودو نيو وون doomam yi juddoo gu ñu woon taalibe yi bare wu ñu woon taalibe yi bare gu ñu woon noonu waaye ay frère boppam waaye nag ay waaye nag ay rakki boppam ñoo la xasaayu topp ko ñoo la xasaayu woon topp ko ba ñu jur seen i doom ba ñu jur seen i doom seen i setaat ba seen i setaat toog ak moom toog ak moom mu wasaare nag wilaya mu wasaare nag ak wilaya ci seen biir ci seen biir ngir seen tarbiyu ngir seen tarbiyu ak seen xam-xam ak seen xam-xam seen lépp ak seen lépp كون نيوم نيو شيخنا شيخ سعد بو كون نيوم شيخنا شيخ سعد شيخنا شيخ سعد بو موي نيو شيخنا شيخ سعد بو موي نيوم موتاخ نيوم نييب نيغي في موتاخ نيوم نييب نيغي في دار نانكو بفي دار نانكو بفي ريجون سين لو شيخنا بو شيخ حضرامي ميغي في ريجون سين لو شيخنا بو شيخ حضرامي ميغي في واي واكر ما من تشراو واي واكر ما من تشراو واكر شيخ بيا في واكر شيخ بيا في تشندار واكر شيخ زاتي ولد بو حيده واكر شيخ زاتي ولد بو حيده كيني

bi ñu def ñu def délégation tam ñu dem fekk Cheikh Mahfou. ñoom ñëpp ñoo mobilisé wu. ñoom ñëpp ñoo mobilisé wu. fekk Cheikh euh, Cheikh Bunana. fekk Cheikh Bunana. doomu Cheikh Mouhamed Lamine. doomu Cheikh Mouhamed ci Louga. ndax dañu ñàkk kilifa gu mag. ndax dañu ñàkk kilifa gu mag. mooy duumu. muy shérifi duumu. ñoom ñëpp ñu dem foofu. ñoom ñëpp ñu dem foofu. ci seen turu bopp. ci seen turu bopp. ci ëllëg sa. ci ëllëg sa Cheikh Sidi Boya. Cheikh Sidi Boya. ak xalif bi. ak xalif bi. ak kilifa yi ak kilifa yi fi nekkoon. ñu daal di yónni délégation. yónni délégation. Cheikh Bunana bi moo ko jiite. Cheikh Bunana moo ko jiite. jotaay gi بيناك نينا جتاي بيناك كناو خليفة بي كناو خليفة بي مي شيخ سعد بو مي شيخنا شيخ سعد بو شيخ سيدي بويا شيخ سيدي بويا دومو شيخ بننا دومو شيخ بننا مي شيخنا شيخ سعد بو تاو تاو تاو ما مام دي تاو شيخنا مام مام دي تاو شيخنا شيخ سعد بو دغن كو غيس ليغي دغن كو غيس ليغي ندخ مو ورا جيت سيريموني بي ورا دم سي بيتي ندخ مو ورا جيتي مو مو ورا جيتي سيريموني بيغا خامتاني موم لا نيو ريف سي بيتي واه واكر الشيخ طالب بويا مشيخنا الشيخ محمد فاضل واكر الشيخ طالب بويا مشيخنا الشيخ محمد فاضل سين خليفه مونكني كني سين خليفه توغني موي سنو كليفه جي توغ موي سنو كليفه جي توغ الشيخ محمد الاغلاف الشيخ محمد الاغلاف دي دومني جايو خليفه بي دي دومن دي جايو خليفه بي الشيخ سعد بو شيخ سعد شيخنا الشيخ سعد بو واو اكرك مينغ في اكرك مينغ في واكر ابداتي واكر ابداتي وشيخنا شيخ محمد فاضل شيخنا شيخ محمد فاضل يوم يب ñoom ñëpp laxasaayu nañu bu yàgg laxasaayu nañu bu yàgg waa kër jeexu Mouhamed Limam yi mooy wax tudd waa kër waa kër waa kër Cheikh waa kër Cheikh Hassan bu Cheikh Mouhamed Limam laxasaayu nañu waa kër Cheikh Sidi Bouye waa kër Cheikh Hassan waa kër Cheikh Sidi Bouye wul Qutub Qutub mi nga xam ni waa Ndar xam nañ ko waa Jama xam nañ ko Cheikh Sidi Bouye wul Qutub bi nga xam ne waa Ndar xam nañ ko waaye waaye nag waa Jama ñoo ko gën a xam ci wilaaya ak mbaax ci wilaaya ak mbaax ak mboolam ku ñu tudd ak ku ñu tudd ak mbooleem ku ñu tudd ak ku ñu tuddul taalibe yi nag waxi noppi taalibe yi waxi noppi Cheikh na Cheikh Saad Bou Cheikh na شيخ سعد بو تالي بي فمو لين تك تالي بي فمو لين تك فكن تقو فكن دفا دفا دفني دفني ربي جعل مواردي ذوي همم منى يلا دال نغا ديف سما طالبي نانيو ام باستيف عاليه وكلهم فيما اهم nañu am Pastef boo xamante ne Pastef bu mag lay doon te kenn ku nekk lii bëgg-bëggam na nga ko defaral yow yàlla waaye ci gàttal mu ni waj'alhum nuwaaba Taha al Mustafa waaye ci gàttal daal mu ne daal na nga leen def daal ñu ñu nekk daal ñoo xamante ne mu mel ni ñoom ñooy nekk ci de assemblée wu assemblée payu yàlla ya payu yàlla ya rasulillahi mooy njiit rasulillahi mooy njiit te ñoom ñooy honorable député te ñoom ñooy honorable député وخناني وخناني bu amoon benn place ci àjjana bu ko yàlla séddee benn place ci bu ko yàlla séddee benn place ci àjjana yàlla ni ko yow yàlla sa njaboot yàlla ne ko yow ak sa nga xagn ko sa bop ak sa njaboot wala nga xagn ko sa bop ak sa njaboot jox ko say taalibe jox ko say taalibe mu ni bu boba nee su boba dina ko xagn bopam dina ko xagn bopam xagn ko njabootam xagn ko njabootam jox ko talibé wa keur cheikh saad bu Bombari wa keur Cheikh saad bu Bombari ñu ngi ci jotaay gi ñu ngi ci jotaay bi ci fep nak ci fep nak ci fep nak ci taxaway bu rafet ci taxaway bu rafet nag ndax ñëpp xam nañ ne Cheikh Saad Bou ndax ñëpp xam nañ Cheikh Saad Bou bu Bambaari Bambaari ni mu ni ni mu taxawee waaye waa kër Cheikh Mouhamadul Aqib yëpp waaye nag waa kër Cheikh Mouhamadul Aqib yëpp ci Sénégal ci Sénégal ak feneen ak feneen seen taxawaay ci liggéey bi seen taxawaay ci liggéey bi taxawaay bu ràññeeku taxawaay bu ràññeeku la waaw tudd naa waa kër Cheikh Bay Cheikh Baya doomu doomu Cheikh Taqi Cheikh Baya doomu Cheikh Taqi mu Cheikh Baya mu Cheikh Baya mu mooy suñu ambassadeur mooy suñu ambassadeur fépp foo ni ci fépp foo xam ne ay taalibe mi ngi foofu ay taalibe nga fa wane na ko barka démb ci début wane na ko barka démb ci début waaye itam mënuma bañ a tudd waaye mënuma bañ a tudd sunu jarbaat sunu doom sunu jarbaat sunu doom yi nekk ci ngor ñi ne ci ngor mooy cheikh wulu na mi mooy cheikh wulu na mi ak xadum ak xadum ak cheikh ak mahfouz ak mahfouz bu cheikh hadrami mahfouz ansar bu cheikh hadrami waaye واي لي غنا فينيل واي لي غنا فينيل سين تخواي برافت سين تخواي برافت موي طالب يو امول مروم موي طالب يو امول مروم اندال ني ني اندال سي فيب سي فيب واي نك رواتينا وانغور واي نك رواتينا وانغور وانغور الفوك ني بارال لين وانغور الفوك ني بارال julul woon doom bi ci Cheikh na Cheikh Saad Bou. julul woon Cheikh Cheikh Mahfou. julul woon te doom ci Cheikh na Cheikh Saad Bou cëroo ko. nee na Cheikh Cheikh Cheikh Mahfouz. Cheikh Mahfouz julul woon wàllu doom. nee na Cheikh na Cheikh Mahfouz. du xeexoo dafa jëloon lépp loo xamante ne wàllu njuréel la mu jëndee ko ak taalibe. dafa wan taalibe yi. dafa wan taalibe yi. maa leen gën a nekk taalibe. maa leen gën a nekk taalibe. mu la xasaayu. mu la xasaayu. di tarbiyu di tarbiyu. Cheikh Hadrami bu Ngumba. Cheikh Hadrami bu Ngumba. moom dafa dafa mel dafa mel ni ceddo ya. dafa mel ni ceddo ya. dafa dafay war fas. day war fas. am fetal am fetal. nekk gouverneur palais bu Cheikh na Cheikh Saad. nekk gouverneur palais bu Cheikh na Cheikh Sall. mu tase ak kilifaam di Cheikh Mahfou. mu tase ak kilifaam di Cheikh Mahfou. mu ne ko su su su su ma amee àjjana nga am àjjana de raw raw naa la. mu ne ko sama amee àjjana nga am àjjana de raw naa la. sama bakkan rek laa topp yow. man sama bakkan rek laa topp yow yow na yaa ngi tarbiyu. fu Cheikh na diglee tarbiyu bu diis. fu Cheikh na diglee tarbiyu bu diis. Cheikh Mahfou lay joxoñ. Cheikh Mahfou lay joxoñ. mu dem jiite ko. mu dem jiite ko. kon nag loolu. kon nag loolu. feeñ na feeñ na. ci taxawaayu njabootam. ci ci taxawaayu njabootam. te bu yàggul dara waxoon naa ko waa kër gi foo xam ne kenn ci ñoom nekkul. yàggul dara waxoon naa ko waa kër gi foo xam ne kenn nekkul. am na lu ñu doon waxtaan. am na lu ñu doon waxtaan. ci suñu biir. ci seen biir ñu ni ñu ne. lii ak lii. lii ak lii. ma ne leen man de lenn wóor na ma. ma ne leen man de lenn wóor na ma. taxawaayu njabootu Cheikh Mahfouz ci taaliba. taxawaayu njabootu Cheikh Mahfouz ci taaliba. aw ma ci sikki sàkk. aw ma ci sikki sàkk. te ni ma ko waxee woon. te ni ma ko waxee woon. noonu la feeñee. noonu la feeñee. am nañ fi nag ay jàmbaar yoo xam ne. am nañ fi ay jàmbaar yoo xam ne. naa ni ci ci miracle xaw ma miracle waa Ndar wala. miracle ci miracle waa Ndar wala shérif yi. داخل كمان الشايمين كمان كمان الشاي واللون اك ادرا شي ادرامي دوم شخص دبو والبنن اك شي حضرامي دوم شخص دبو كي من يجي يجي بأوروب كي من يجي يجي بأوروب كي من يجي يجي برب بنيخ تبير موريتاني كي من يجي يجي برب بنيخ تبير موريتاني ام تشغل يبري ام تشغل يبري الله بنات الله بنات موبايل يب موبايل لب مو ñew ci mbir mi mu ñew ci mbir mi man ko doon wax xalifa bi kon daal yooyu yëpp ci leeral kon daal ñooñu ñëpp ci leeral wala loolu lépp ci leeral euh, ak ci gàttal ak ci gàttal mooy wane ne waa Ndar mooy wane ne waa Ndar am na lu leen yàlla may am na lu leen yàlla may ci Cheikh na Cheikh Saad Bou ci Cheikh na Cheikh Saad waaye am na lu leen yàlla may ci bis bii waaye am na lu leen yàlla may ci bis bii mu feeñ ci bis bii mu feeñ ci bis bii mu feeñ ci bis bii mu feeñ ci bis bii fi may daanelee nee na fi muy daanelee خاين سخ برومم خاين سخ برومم بوكو ولا سخلوكو بوكو ولا سخلوكو واي واي برم خم خم دنيوني برم خم خم دنيوني ترك العملي ترك العملي خوف الرجائي خوف الرجائي من الرجاء من الرجاء ويتم بيرو moytu mbir ngir bañ ñu wax ni da ngay ngir bañ ñu wax ni da ngay ngistal di ngay ngistal da ngay ngistal neena ñu bobu ci bopam neena ñu bobu ci bopam ngistal la ngistal la suñu ni cheikh na mi ak talib boye wul shibi neena suñu cheikh na bi ak ak cheikh talib boye wul shibi ak cheikh al fadil ak sidi boye ak at fële ci kess kees seen tu tubay ngir liggéey bi mais ngi la xasa yu ma sha Allah noonu la lañu wax ni cheikh al fatih mi pour le précis lolu la ñu wax cheikh al fatih mi mooy suñu homme d'affaires moy suñu homme d'affaires mi ngi woon en yi mi ngi woon Asie temps yi ci ay dëkk yu bari ci ay dëkk yu bari waaye nelawul guddi waaye nelawul guddi nelawul ngir lan ngir lan ngir tant bi ngir tante bi mu meuna baye ko Maroc mu meuna baye ko Maroc mu commandé ko bu bes tak mu commandé ko bu bes tak ci misir ci misir yi nga xamni yi nga xamne moy misiru xayma Cheikh na Cheikh Saad moy misiru xayma Cheikh na Cheikh Saad xayma Cheikh na Cheikh bu bu jek xayma Cheikh na Cheikh Saad bu jek ni la mel ni neena ni la melone moom nag mu mu. moom nag mu. mu mu dogu ci yàlla. mu dogu ci yàlla. ak ci cheikh na ak ci cheikh na. pour mu indi lu ni mel. pour mu indi lu ni mel. ay millions millions. ay millions yi millions la xay mi di jar boo ko defoon ndànk. boo ko defoon ndànk. waaye soo ko bëggee yàkkamti sax. waaye boo ko bëggee yàkkamti sax. day day doublé waat. day doublé waat. ci prix. ci prix. waaye day doublé waat. waaye day doublé waat. ci ni ñu koy indi. ci ni ñu koy indee. ndax diggante bu mu paree ak léegi ndax diggante bu mu paree ak léegi pour mu mën a yegg si fii biig si guddi pour mu mën a agsi fii biig si guddi li mu si daj li ci daj kenn daju ko fi kenn daju ko fi dem da may ko yàlla may ko fi ñu ko jëkkee samp fi ñu ko jëkk a samp mooy fi ñu jëkkoon samp xayma Cheikh na Cheikh Saad bi mooy fi ñu jëkkoon a samp xayma Cheikh na Cheikh Saad bi muy barab bii muy barab bii loolu misaal la moo xam ne loolu misaal la moo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla ci sant yonent bi sant yonent bi di ñaanal ko moom yàlla di ko ñaanal moom yàlla yàlla aar ko sàmm yàlla aar ko sàmm ko li mu ci jëf ci coono li mu ci daj ci coono waxuma suba wala gannaaw suba waxuma suba wala gannaaw suba waaye léegi léegi léegi waaye léegi léegi léegi léegi léegi mu gis ko bokk ko ak ñi mu ñi ñëpp. bokk ko ak mbokkam yëpp ak ñi ko yéene. ak ñi ko yéene di wax sunu mag ñu baax ñi. di wax sunu mag ñu baax ñi. Cheikh Saad Bou mi ngi nii. Cheikh Saad Bou ngi nii. il faut ngeen dar ko gunge ko. ci commencement bi ba ci fin. il ko gunge ko ci commencement bi ndaw ñi. ndaw ñi fokk ñu xam ne bu taalibe di tarbiyu fokk ñu xam ne bu taalibe di tarbiyu soxla njëriñ soxla njëriñ yéen sët yi ak doom yi yéen sët yi ak doom yi war ngeen tarbiyu ngir ngeen am njëriñ boobu war ngeen tarbiyu ngir ngeen am njëriñ loolu فيب فو خمني فيب فو خمني بين فور دم بين فور دم شيخ مفهومي دبا شيخ مفهومي دبا مو فور دم ولا ديليغي مو فور دم ولا ديليغي خمل نيونيو بور خمل نيونيو ني كليفغي نك ني نيدن كليفغي اك مبولو مو اندال اك مبولو بي مو اندال لي ني دوغو لي ني دوغو موي خايمه بي موي خايمه بي فومو مسا تيغو فومو مسا تيغو فوفو لي ñi mu fekk ñi mu fekk ku ci yàlla def sa wërsëg ku mu fekk yàlla def sa wërsëg nga téye sa liggéey ak sa liggéeyu maam nga téye sa liggéey ak sa liggéeyu maam yaa ko moom dinañ la dooleel yaa ko moom daañu la dooleel koo xam ne loolu métti na ci yow koo xam ne loolu métti na ci yow wala am nga ci xel ñaar wala am nga ci xel ñaar dandul ndànk randul ndànk nga bàyyi ñi ci des ñu def ko ci anam bi gën a rafet nga bàyyi ñeneen ñi ci des ñu def ko ci anam bi gën a rafet te noonu lay lay amee te it noonu lay amee ci fépp fu mu dem ci fépp fu muy dem ndax cheikh na bi mu koy jëkkee indi ndax cheikh na bi mu ko jëkkee indi amu fi mbokk amu fi taalibe amu fi mbokk amu fi taalibe waaye li mu ci yéene woon waaye li mu ci yéene woon sotti na bu baax sotti na bu baax ba ñëpp xam ne sotti na ba ñëpp xam ne sotti na xale yi waa kër cheikh na yëpp xale yi waa kër cheikh na yëpp takk leen seen i ndigg takk leen seen ndigg yëkkati leen seen i téléphone yëkkati téléphone xool leen seen i seen i seen i seen i seen i jàmm xool leen seen i am jàmm ñu mobiliser wu ñu mobiliser wu ndax kër gi ndax kër gi am na miracle yu doy waar am na miracle yu doy waar benn bi بن بي كان مصول قس نياري تالي بشيخنا كان مصول قس نياري تالي بشيخنا كي والو يلا كي والو يلا نجومو نجومو لان موكا ورال لان موكا ورال موي كان نكون لك لنغا امتي شيخنا موي كان نكون لنغا امتي شيخنا دوينا لا اكبرك دوينا لا اكبرك قسو قسو لي سمورم ام قسو لي سمورم ام بنين بي من بنين بي موي كان نكون لك تنجبوت بي كان نكون لك تنجبوت موي ست موي ستات موي ست موي ستات ني ني غيس تي يو شيخنا شيخ سعد بو ني غيس تي يو شيخنا شيخ سعد بو باتاخ ني جبلو تي يو باتاخ ني جبلو تي يو دي تربيو دي تربيو سباي بو نيوي sa baay bu ñëwee sa nijaay sa keneen sa keneen bu ñëwee bu ñëwee duñ ko gisee noonu duñ ko gisee noonu yow dañu gis ci Cheikh na Cheikh Saad Bou yow dañu gis ne Cheikh na Cheikh Saad Bou yow gis yaay seen rasulillah yow yow yow seen rasulillah yaay seen lépp yow seen lépp yaay seen wasila ci yàlla yaay seen wasila ci yàlla kon askan boo xam ne am nañu may bu toll noonu kon askan woo xamante ne am nañu may gu toll noonu kenn ku ci nekk am nga sa jaloore yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp kenn ku ci nekk am nga sa jaloore yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp kenn mënu la fa wuutu kenn mënu la faa wuutu kon bu boobaa tam ngeen xam ni kon bu boobaa tam ngeen xam ne da ngeen delloo borom mbir mi da ngeen delloo borom mbir mi cant ak ngërëm. cant ak ngërëm. ci ngeen mobilisé wu. ci ngeen wu. pour ñu liggéeyal Cheikh na pour ñu liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou. mbooloo mi fi nekk yëpp. mbooloo mi fi nekk yëpp. kenn deful lenn. kenn deful lenn. ngir ngir. dama bokk ak diw. dama bokk ak diw. moo tax ma topp ko ci. moo tax ma topp ko ci. Cheikh Ba mi ak Chaaya mi. Cheikh Ba mi ak Chaaya mi. xam ngeen ni ñu mel. xam ngeen ni ñu mel. waaye kenn ku ci nekk da nga doylu. waaye kenn ku nekk da nga doylu. ci sa xalaat. ci sa xalaat. sa pas-pas ak sa pas-pas. sa ngëm. sa ngëm. ni lii ma def. ne lii ma def. defaluma ko kenn. defaluma ko kenn. sama bopp laa ko def. sama bopp laa ko defal. ndax sama responsabilité la. ndax sama responsabilité la. su ma ko deful. te bu ma ko deful. am naa ñaari seede. am naa ñaari seede. yu taxaw sama kaw. yu taxaw sama kaw. benn bi benn bi. sama bopp sama bopp. benn bi beneen bi. sama borom sama borom. te lu am ñaari seede. te lu am ñaari seede. diis na ci kaw gor. diis na ci kaw gor. fimé ma daanelee. nee na fi muy fi muy wàccee kàddoom. bi. moy khalif bi. yàlla moko jox mbir mi. yàlla moko jox mbir mi khilafa gi. mu jëkke ni. mu jëkke ne. danaa def tourné bi. danaa def tourné bi. li sama mam daan defee. li sama mam daan defé ngir baxé ko ngir baxé ko. jami yàlla yi jami yàlla yi. ak barab ya ak barab ya. ma teg ci ma teg ci. mu teg ci. Nimjaat. Nimjaat ci korité. ci korité ñu organiser ko organisation bu mucc ayib. ñu organiser ko organisation bu mucc ayib. muy ñaareelu mbir muy ñaareelu mbir ñetteelu mbir ñetteelu mbir mi bu loolu weesoo bu loolu weesoo dinaa wax taalibe yi dinaa wax taalibe yi kilifa shérif yi ak kilifa shérif yi xool leen barab bu leen doy xool leen barab bu leen doy ak temps bu leen doy ak temps bu leen doy ñu daju ñu daje ñu daje ñu daje ñu waxtaan ñu waxtaan ci kër gi ci kër gi ci tariqa bi ci tariqa bi ci diine gi ci diine gi ci réew yi ci réew yi lan mooy jégal liggéey bi lan mooy jagal liggéey bi bu boobaa ñëpp tënku ci bu boobaa ñëpp tënku ci ci Nimjaat ci Nimjaat ak ci ngumba ci Sénégal. ak ci ngumba ci Sénégal. mu ñaax. mu ñaax. shérif ak taalibe yi ak taalibe yi. ñu taaral leen. ñu taaral leen dëkkal leen dëkkal leen. jëme leen kanam. jëme leen kanam. jaamu ci yàlla. jaamu ci yàlla. jaamu ci soxla nit ñi. jaamu ci. tarb yi ci soxla nit ñi. ñeent yooyu bu jàllee. ñeent yooyu bu jàllee. projet yi gën a taxaw. projet yi gën a taxaw. mooy ñu wakkilu ci yàlla. mooy ñu wakkilu ci yàlla. sabablu ci jaamu yàlla yi. sabablu ci jaamu yàlla yi. ngir yoonu Nimjaat. ngir yoonu Nimjaat. ñu godroné ko. ñu godroné ko. ba mu wër. ba mu wér xarabu cheikh barabu ba mu wër ba mu wër barabu cheikh na cheikh Saad Bou nga xam ne puus puus la nag bi nga xam ne ki nga xam ne dafa yore puus puus mu ne wàcce ba ci ba ci cheikh mu mën a dem ak puus puusam ba ci cheikh na rawatina keneen rawatina keneen beneen bi beneen bi mooy nimjaat mooy nimjaat dafa laaj dafa laaj kër kër pour xilaafa bi kër maag moom xilaafa këru xilaafa bi ku toog ci xilaafa bi kër mag moom kër mag moom ak benn kër ak benn kër pour gan ñi pour gan ñi pour Euh, mooy mooy mooy troisième. mooy ñetteel ba. quatrième. ñeenteel ba. Euh, grande mosquée. ah jumaa ju mag. ak euh, institut islamique. ak institut islamique daara ju daara ju mag. dafay wuyu dafay wuyoo. ci dayu nimjaat. ci tolloo nimjaat. ci tolluwaayu nimjaat ci adduna si. te loolu gën gaa tuuti. te loolu gën gaa tuuti. ñeenti ñeenti hectare dem juróomi ñeenti hectare dem juróomi hectare. moo ko mën a te foofu la mën a tegu foofu la mën a tegu beneen bi mooy hôpital beneen bi mooy hôpital boo xam ni sous régional boo xam ni sous régional waxuma hôpital national waxuma hôpital national hôpital sous régional hôpital sous régional sous bi yëpp danañ ci mën a waxuma sous région bi yëpp danañ ci mën a wekk seen i wekk seen i faju seen i faju nga xam ni kenn dootul soxla hôpitaux yi nekk nga xam ne capital bi kenn dootul soxla hôpitaux yi nekk ci capital bi wala capital régionaux yi ay ju ay dizaine de milliers. taalibe ay dizaine de milliers taalibe. ci korite di ñëw Nimjaat ci korite di ñëw Nimjaat. bu ci yàlla defee dara. bu ci yàlla defee dara. kenn du xalaat ni. kenn du xalaat ne. am na lu ñu manqué. am na lu ñu manqué. pour ñu mën a évacuer feneen. feneen. beneen bi mooy barab yu mel noonu. beneen beneen bi mooy barab yu mel noonu. dafa soxla courant bu doy. dafa soxla courant bu doy. dafa soxla ndox mu doy. dafa soxla ndox mu doy. taxaw. waaye laataa loolu yëpp di taxaw. lotissement. lotissement bu moderne. boo xam ne dafay suuraale ñi dëkk Nimjaar. boo xam ne day suuraale ñi dëkk Nimjaar. day suuraale cheikh yi. day suuraale cheikh yi. ak zaawiya yi aju ci Nimjaar. ak daara yi aju ci Nimjaar. ñu mën a am seen espace bu doy. ñu mën a am seen espace bu doy. ñu am seen barabu bopp. ñu am seen barabu bopp. boo xam ne saa bu ñu bëggee dem korité. boo xam ne saa bu ñu bëggee dem korité. lu ñu soxla yóbbaale. lu ñu soxla yóbbaale. lu dul seen turus. lu dul seen turus. ndax day fekk ñu bàyyi foofu lépp. ndax day fekk ñu bàyyi foofu lépp. ci jamono yooyu. ci jamono yooyu. mu nekk seen noflaay

waa Débi. waa Débi. am na lu ñuy tawat. am na lu ñuy tawat. ci seen barab. ci seen barab muy yoon muy yoon hôpital muy école waaye am na lu ñu xalaat waaye am na lu ñu xalaat ne fas nañu yéene ne fas nañu yéene taxawal kër Cheikh na Cheikh Saad bu foofu taxawal kër Cheikh na Cheikh Saad bu foofu ci début ak daara boo xamante ne daara moderne lay doon dinañu waxtaan te ñoom dañuy waxtaan place bi gën a jëkk xool place bi gën a jëkk ñaan nañu xalifa bi mu ñaanal leen ci ñaan nañu xalifa bi mu ñaanal leen ci ñaan nañ ko itam mu siiwal xalaat boobu waaye ñaan nañ ko itam mu siiwal xalaat boobu ñu bëgg ñu baax ñëpp pour ñu baax ñëpp te bëgg ci dugal seen loxo te bëgg ci dugal seen loxo ñu mën ko def ñu mën محمد الحبيب محمد الحبيب قسنا لا اك فتح دين بو قسنا لا اك فتح دين بو تيرو وي بو تيرو تي والو موريتاني واي بو تيرو تي والو موريتاني تيرو تي والو مباكي تيرو تيرو تي والو مباكي اك سنغال ييب لولو جاخال لولو لو ني جاخال ديب خالي ندا خامن ني ديب خالي تي كيرغي ياغي تي كيرغي تي ماغي ياغي تي ماغي ياغي تي خالي ليغي ليغي برافات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله الله Sure